<laughs> léegi ñu jóge ci loolu ñu gis combat combinaison yi fi taxaw diggante Bombardier ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye mhm. noo gisee boobu combat. Sénégal lambu yi tëg xaw yëpp yëpp dafa neex. gars yi dañoo maroon combat dinañ doyal de. <laughs> sëñ bi naa loolu sëñ bi boo bëggee dégg dëgg booy ñaar mhm. tafaatin lambu. loolu rek daa doy si benn saison. ñu ne déeta waay favori. Mhm. wax dëgg yàlla ak di man moom bu ma doon jox favori tafaatin laa koy jox. lu tax Tapha Tine moo ëpp doole moo gudd gën a gudd moo gën a rëy moo gën a joti loxo. ak dëgg moo dàq a xeex moo dàq xeex booy ñaar waaw yow sëñ bi moo dàq xeex booy ñaar waaw booy ñaar champion la def na ay performance am ba egg si mhm. na suul tànk rek te xam ne tamit moom tamit am na combat. yee. Bombardier Balla Gaye. Bombardier Balla Gaye. lamb la Bombardier daan na Balla Gaye waaye ba muy daan Balla Gaye Balla Gaye neen daf feebaroon waaye tamit fii ku nekk am nga droit bombardier sunu kilifa la maa ngi koy nuyu. di ko si bi mu amee bombardier daf na ko demul faju saa boo tanee nga ñëwaat faju ji na boo wër man maa ngi wax ak yow nga dégg ba ngaa dégg dëgg. Mhm. Balla day daan bombardier yàlla na ko yàlla def. foo teg loolu fu ma ko teg mooy far. far ak waaye bañ a far ma far ak Balla ba waaye yow bombardier sunu kilifa la bombardier bu daanee Balla Gaye du neex ndax bombardier ren a ko dese ay weer a ko dese si lamb ji bu daanee Balla Gaye bàyyi lamb ji du neex Balla Gaye na daan bombardier taxawaat làmb ji booy daw songaat Balla Gaye bërinteeg ñoom. Modou Lo Ama Balde. Modou Lo Balde làmb ju rëy la Ama Balde am na combat gu ma sëkk Modou am na combat ndax Modou Lo champion la day bëre di xeex di daanu di xeex di jonkan di xeex Ama Balde pour moom ku taxaw ci kanamam moom moo la mën làmb la cinquante cinquante. cinquante cinquante waaw. ñu ñëw ci combat bi nga xamante ne andi woon na fi coow. am jotoon nañ la dégg sànq am loo ci wax waaye man après dama la cee mere ci diggante ki nga xamante ni nii mooy guy gi ak rëg-rëg yow loo ma mere woon balaa ma si toog non balaa may wax loo may mere loo ma loo ma mere woon non dama la gis keroog Lamine Samba génn am lu mu wax nga génn tontu ko après ñu jékki-jékki gis la nga dem seeti Lamine Samba waxtaan ak moom mais après da nga nekk di ko tagg gaay naan la moo tax comprendre du ñu daal du loolu man du ma tagg du ma tagg man ku dul Serigne Touba rek dafa doy ci tagg mhm. Lamine Samba dafa wax ak guy gi waaw ma génn tontu ko. Mhm. ma dama am kilifa. Mhm. Abdou Lahad Ndiaye. Mhm. lamin Samba woo Abdou Lahad Ndiaye. ne ko li la li ma Kara Dollé wax dégg nga ko Abdou Lahad Ndiaye woo ma Aldo woo te su may kilifa lañ. Aldo Kër masaar fii kilifa la fi Abdou Lahad Ndiaye saabu bu ma ngemboo moo may jox avance. ñoom ñoo ma jox ndigal boole ma ay nit ña ma cooli jeex na woo lamin Samba Lamine Samba moo ma njëkk a woo jot sama jabar. ne ma karaama ne ko ah mu ne ma lan laa jot ak yow woo si ma si jàmm mu wusi ko si jàmm li ma kay wax wax naa ko ba pare waaye dama am ay kilifa Lamine Samba woo leen boole ma ak ñoom samay kilifa woo ma ne ma na Maxi bi tamit dama dama dama koy jeex. ñëpp dañ la dégg nga ne Lamine Samba moom kese du fi nangam moom kese am na fi ñeneen ñu fi nekk. waaw xam nga après jékki-jékki woo wax fi la mbuum tàng après nga jékki-jékki yaa fi nekk yaa fi. nangam non waxuma yaa fi ne. bul ma waxal lu ma waxul. waaw loo wax Lamine Samba damaa wax ak moom. Hmm. wax ko wax dëgg ñëpp mu woo sumay kilifa wax ma dem këram ñu woo ko mu ne mu ngi golfu Aldo président Aldo ak Abdoulaye Ndiaye yabal ma këram ma ànd ak ay nit dem fa mu ñëw jabaram toog na ma ba ma déggee lii ak dooma bi jige Suisse damaa jooy Lamine Samba waxtaan ak man ne ma guy suma doom la ma ne ko diggante làmb ak journaliste ak mbër ñëpp ñoo bokk benn waaye dafa war rafet waxtaan ak moom loxo tant que guerre mondiale si àdduna bi la nekkoon ay pisale lañ doon dóorante te après dañoo joxoon dañoo joxante loxo ñu woonte téléphone waxante lu rafet ma jox ko loxo mu jox ma loxo mu jeex man waxuma ay xoyum xoyum waxuma fi ay gujum gujum jote nañ juboo nañ ci jàmm ak salaam ma koy ñaanal jàmm di ko ñaanal ay famem ndax wax dëgg yàlla ba demee recevoir nañ ma normal waaye jaamu kenn yóbbu ma fa bu dee jaamu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul da cee doy képp yee ok noonu la demee loolu kon leer na fii la layee ci Wassare Lamb. léegi noo gisee ki nga xamante ni mooy Gaston. ak Gris Bordeaux jox naa ko avance boo na ma delloo sama xaalis ñu dem ci tribunal noo gisee loolu. seytaane moo bari doole seytaane moo bari doole Gaston lambu Sénégal da cee def lu bari senegal Gaston Mbengue da cee def ci lambu si lu bari sëñ bi Gaston Mbengue ñun dañ kaa war a delloo njukkal. Mhm. ndax wax dëgg yàlla ak yénte bi li mu bay si si waaru làmb dafa bëri fii moo fi jox ay mbëri ay millions waaye tamit mbëri tamit Gaston da leen war a delloo ndax promoteur bu amee ta mbër amul làmb du am ma jox la misaal si gàttal mbër bu amul woon promoteur du am amateur du am kon coow lépp mbër a ko waral waaye tamit yéen ñii di ñëw ba fii di ñu jël si bu amuloon amul woon doo leen ñu am mhm. waxtaan bi ma waxtaan ak yow keroog mu neex vie yi bëri moo taxoon nga jël si ma bu amaatul fekkoon ba ma waxee yow benn vie nga am doo fi ñëwaat <laughs> waaw su ma neexoon nga woo ma ma ne da nga may fay wala ma wax waaye foo ma soxla boo bëggoon sax ma ñëw wala ndax bu dul dara da ngay déggoo ak yow téléphone nga may conseil Gris Bordeaux Gaston Mbengue kilifaan la ñoom ñaar nañ toog waxtaan joxante loxo baalante ak te nga xam ne Sénégal jàmm rek a fi xaj mbër Gaston sunu kilifa la sunu lépp la yow tamit sunu kilifa nga sunu lépp nga ñi ciy dox jàmm nañ ci dox jàmm Gaston sa nijaay la wala mu nekk sa papa ngeen dox jàmm mu joxaat la avance ngeen bëre. nga nga ut adversaire ngeen bëre diggante moom la dëgër dafa neex. waaw mais lamb la dëgër Gris Bordeaux lamb ju neex la te maa ngi dégg sax tey xaw ma ñu ne dañoo demoon États-Unis si ñi xaw ma seen combat dafa taxaw mais lamb ji na taxaw promoteurs yi amateurs yi am jàmm CNG ñu jox ko ko mën a yor. manager yi juboo promoteurs yi def benn say juboo Sénégal am jàmm. dem ba ñii di report kii euh, yi ñoo ngi dajaloo di waxtaan fu journaliste mën a dajaloo waxtaan ñii di mbëri ak amateur rek ñëpp war nañ fa mën a juboo ndax làmb jëm te kanam ndax làmb fi mu toll nii dafa maanaam dafa xaw a daanu sax laay wax. sëñ bi làmb daanuwul dafa suulu. dafa suulu de. làmb daanuwul dafa suulu. woykat mu ngi dawal oto. Mhm. paa wax ay ca ay ca ñu ngi dawal oto. tëggkat yi ñu ngi dawal oto médecins yi ñu ngi tag dawal oto ñu ñun ñuy ngemb waral lépp dawaluñu oto ñàkk déggoo moo ko waral. première yi mbër yi gën a war a war a jóg mooy ñu waruñoo feebar di ket si kenn. te mbër yi di fayee ko ay milliards millions. Modou Lo fan yii defuñu chantage ñu ne 400 millions la la la gagné gu saison bi passé Balla Gaye daa denc ay millions comme ñëpp. ñëpp denc ko Modou Lo na génne som teg gars yi génne somme teg ñu génne suñuy carte membre ñun war nañu mbër yi war nañu am sax cité si dëkk bi. te ñu bàyyi affaire national la de. waaye mbëri ñoo war a tedd waru ñoo dem si kenn feebar ñu koy loolu CNG moo ko war a ubbi bu gars yi xam nga waaye tamit moom pays va mal. lépp moo moo moo lamb va mal bàyyi. barke borom daaru bàyyi lamb ji. ñu ñëw dëkk bi